ba tax ñu daal di amee woon euh, manifestation boobu yële démb donc mu nekkoon journée bu tàng ci diggante takk der yi ak manifestant yi foofu ca euh, xosan to nekk ca diwaanub Kédougou Saa Wolof euh, yow lay interpellé parce que man ak yow xam naa ne li ñuy wax dina dina bëri yow depuis ay ñu euh, ci wàllum politique ñu daal di def euh, le choix euh, ci Amadou Ba mbul mu jiite la coalition benn bokk yaakaar boobu ba léegi àdduwoo ci en tout cas fii ci suñu plateau mais dinañ ci ñëw ginnaaw li nga xamante ni moom mooy mbirum sa mbirum xosantu <laughs> xosantu moo bi na xaw na <laughs> tur bi xaw na xaw na kii ah. tur bi kii la ah, ko waaw. Ah. tomboron koto. tomboron tomboron koto. ay ah, xosantu voilà. waaw foofu dafay bëri yu yu mel nii ah. Mm-hmm. parce que tamit. Euh, ñoom daanaka ñu nekk ci diwaan boobu amuñu lu dul mm. activité boo xam ne si nii tey bu dul euh, maanaam ci wàllum mii nag affaire yooyu surtout orpailleurs yi euh, mais gis nañ dañ ci amee jafe-jafe daal bu baax a baax euh, donc sa wolof li xew xasantu ban jàngat nga ci am pour yow ndax jàpp nga ni arrêté boobu lu waroon a mën a nga waroon a mën a doxal la wala jàpp nga ni tey erreur la boo xam ne si nii tey et administration bi def na ko surtout le préfet de Saraya. Hmm. waaw li xew foofu moo xew ci réew mi yëpp xanaa foofu dafa flagrant rek ay boo duggoon tey ci suñu port bi doxandéem yi ñoo fa gën a gis seen bopp ak feneen ak feneen ak feneen wala loo xam ne boo ciy dem bay gis sa bopp ñu may doomi bitim réew yi hmm. maanaam ñu dugg kenn du leen kenn du ko jaarale yoon ba nga xam ne yow tey nit ki day ñëw ci sa réew Euh, bu dee suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu jege yow vie bi dund bi seer ba nga xam ne doo ci mën a gis sa bopp damay jël niral ni taximaan yi nga xam ne benn course loo bañ keneen ki nangu hmm. te fekk ne yow la ngay dundee moom du ko dundee mën naa sax fanaan ci biti wala yu demee noonu barki dem dama nekk ci benn restaurant di añ fi may añee am koo xam ne mi ngi ñëw gàddu palaat guróom ak yooyu yëpp jàmbaar am ah, mag bi mu duggee ci restaurant bi li mu wax xale bi jaay may ma may ma ma lekk ma xool ko ba mu yàgg ma ne ko yow kon yow xalaatoo jënd añ daal. Mm-hmm. xam nga loolu dafay nekk benn genre forme boo xam dafay banal ci nit ñi nii du ñu parce que man jomb naa li mu def amaana sénégalais yu bëree bëri jomb nañ ko. Mm-hmm. kon moom du mën a jaay li muy jaay. loolu nag am réew dañ koy teg ci yoon loolu moo dem ba foofu nga xam ne mooy xasantu li nga xam ne tey mooy ballu mbindaare yoo xam ne mi ngi génn ci sa dëkk te gisoo ci sa bopp. am beneen jàngat bu ma gis mooy arrêté préfectoral yi maanaam dafa dégénéré foofu mais keroog ñu nit F24 suñu toppoon préfet bi loolu mën nañoo dal. peut-être kon saa wolof lañ naan moom lañ robi ndax man ñëpp xam nañ sama taxawaay ci F24 damaa nekk si pour que ñu braver li nga xam ne tey moom la préfet bi teg muy arrêté boo xam ne tegu ko ci yoon ndax damaa jàppale ndeyu àtte ji man la àndal. Mhm. parce que dañ ma may ma war a dox doxum ñaxtu constitution bi garantil ma ko loolu ma war ko def nit ñëw war ma koo tere ñu ne ko yellul ci yow nga tere ko lu dul lii mën a am pëccëxoo te bu amee mënee am pëccëxoo sax dangaa war a am takk der yu ko yiir ba pëccëxoo du am nit ñi dox ci seen jàmm soo demee nag ba mënoo am takk der yu ko yiir ci nga koy daal di mën a tere kooku ñëw tere ko te bis boo fa demoon tey di dox su fekkoon ne nangu nañ ko terewuñ ko man nga faa fekk téeméeri takk der wala ñaar téeméeri takk der suñ ko bëggee tere nga fekk fa junni kon uh, junniy takk der kon mm-hmm. waxam jooju day daal di ñëw ne wax ju du dëgg la mm-hmm. mooy li ko ndeyu àtte ji digal moom respecté wu léegi man ndeyu àtte ji digal ma ma respecté ko gën a am droit fuuf ci moom que li mu teg te ak yëfi xuusmaa ñàpp la def ma wàcc takk der yi jàkkaarlook man bavir am wala kenn rëcc la wala nga jublu ko ci sax parce que man li ma gëm am nañu ko ci jublu injustice boobu bu yàggul. Mhm. léegi bu ñu maree kan moo kan moo tooñ. administration Sénégal euh, administration préfectoriale wala territoriale ñoom ñoo nekk di tooñ askan wi. Mhm. foofu am nga lotaabe mbir yi ba nga xam ne askan wi duñ ci gis seen bopp te pourtant dañu teg ak jàmm ak bokkeef dañ ko teg ngir mu parce que dañoo am lu ñu waxoon ca euh, référendum 2016. ci ressources naturelles yaakaar naa ca boo demee ci article ki ñu ne les ressource naturelles appartiennent au peuple. on l'utilise pour améliorer leur condition de vie est-ce que li ñu def méngoo na ak améliorer leur condition de vie mhm. kon ba tey day dellusi si ñoom ñoom ñoo yàq kee dem naan day abrogé wala nangam nangam te ku waafe lépp muy ministre de l'intérieur su fekkoon na li gouverner sa prévoir teeloon nañoo xam ne yii ñuy teg nit ñi di leen bundu xataal wala dara ñu xam ne nit ñi dañoo war di dox doxu ñaxtu waaye dañoo war di dund dund ku ñëw kon lii du am kon mhm. li ñuy wax médecin après la mort li ñuy naan ñi koy suuxat ñoo ko sooke maanaam walla war koo saafara ñoom ñoo ñëw sooke mbir mi maanaam dëmm ray la jaale la loolu laa fi gis. Mhm. d' accord euh, euh, Moustapha yow daa ko noo ko gisee li xew xasantu ba ñaar ñàkk ci seen bakkan am ñu bëri ñoo xam ne si nii euh, am nañ ci ay gaañu gaañu. waaw c' est déplorable d' abord damay jaale ñi nga xamante ne ñoo si ñàkk seen bakkan seen i woy jur ma jaale leen bu baax a baax képp ku si am jegeñaale ñu fàtte ne tamit. nee na ñetti dee la tey ah. am na beneen waaw ah, mais je ne peux pas me fier ci ay ah, ay ci ci lii pour euh, est-ce que c'est est-ce que c'est confirmé parce que bilan bilan bi ñu génnoon ba ba ce matin daal en tout cas. deux la ñu waxoon deux la woon voilà deux la woon après suñu paree dañu vérifier on verra si am na troisième boo xam ne en tout cas li ñu wax daal mooy amoon na ay blessés grave grave yoo xamante ne constaté woon nañ ko tamit nit ki démb mooy euh, bi bi fitna gi amee. Mm. maintenant situation bu déplorable la boo xamante ne man je me dis que est-ce que tey jii ñooñu xam nga yooyu mooy indi yenn yenn yenn santiment de révolte yoo xamante ne kenn du ko ñaan yàlla ci réew. mais imagine toi fu mel ni ay Kédougou mais ñoo xamante ne jeunesse bi wala ndaw ñi li ñu am pour daan seen doole wala li ñu yóbbu seen kër lenn kese la mooy dem ci exploitation minière yi daan fa sa doole ñëw indi ci kër gi. Mm-hmm. xam nga yu ni mel tellement dérisoire tuuti ba nga xamante ne amul doole mais kooku boo bëggee dem nga ne dama dama leen indi indil ay jooyanti. Mm-hmm. personnel boo xamante ne non qualifié leen dinaa ci am ay modification yu muy indi mais loolu yaa xayti waxtaan si ak ñi nga xam xamante ñoom la concerné. Mm-hmm. mais boo ko bëggee def waxtaanoo si ak ñoom ñu la déet fa nga jëm baaxul nga force ba génnee arrêté bi. ñu xëy jàkkaarloog yëpp ngeen di leen dóor ay bal ba mu ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan loolu je pense que tey jii même bu ñu xoolee dëgg dëgg dëgg dëgg préfet ba waru faa war waru faa yendu tey hmm. man dama jàpp ne euh, ki nga xamante ne mooy Antoine Diome bu xëyee foofu noonu bii ñibbi si war naa ànd ak préfet xool feneen fu mu ko yóbbu waaye préfet bu war faa mën a sinon tension lay juraat beneen fitna lay jur parce que ñooñu ñu ray tamit est-ce que dinañ dinañ teel a def bi noonu seen biir nangu ko te li ci gën a metti mooy foofu c'est c'est c'est une beneen dundin la beneen nekkin la. Mhm. temps yële passé amoon na fi sama amoon na fi c'était à Tomboronkoto mais xeex bu metti bu fa amoon tamit ci ci benn entreprise si je ne m'abuse pas PMC la tuddoon. ñu lànk na ni duñ ci d'accord ak ñoom gendarme bi génnaat ñu noot ci arrestation yu bëri c'est-à-dire bu fa fitna amee day metti mettiwaay boo xamante ne kenn mënu xam lan moo ko expliqué. mais mhm. est-ce que maintien de l'ordre fu mu amee daa war am ku dee. man question bu laay njëkk posé. Mhm. est-ce que maintien de mais du yoon. Mm-hmm. et à chaque fois bu ñu tuddee tey ji waa waa waa waa xosonto yooyu di manifester ñoom dañu jàpp ne lii bu ñu ko fi defee da ni xañ liggéey ndaw ñu ñu dootuñu liggéeyati te foofu lañu am pour liggéey mais gis nga xam nga fii tey ji Mahfouz mën nga xëy toog nga ne man damay dem mané baru ju war nga yóbbu sa doom ci atelier menuiserie mu dem na le mais genre dëkk yooyu wow na wawaay boo xam ne kekk na kekkaaral goo xamante ne mm-hmm. euh, sociologue bii di Ali Ali euh, Kaliñan def na ci def naa si la def am sax si je bind na ci daal lu ama am solo loo xamante ne man jot naa ci yër quelques paragraphes mais tu te rends nettement compte que ne mi prostitution ba mi drogue bi mi jaay beneen vie boo xamante ne tey jii ñoom euh, ku leen dimbaliwul waroo leen a war waroo leen a mën a mën a jaay doole war nga leen di faat. mais mhm. ñooñu tey jii bu ñu nekkee ci condition yooyu noonu nekk ci taxawaay bu ni mel est-ce que yoon la ñuy manifester ñi jël ay bal di leen ko dóor. ñooñu di mhm. manifester ban menace la ñuy poser daal la ñuy li ma dégg de dañoo baare tali fii. am ay euh, dajale ay pneu taal kàkku yu nu mel ndax loolu jar naa bakken ba ci koo xamante ne am na cinquante huit ans beneen koo xamante ne Burkina Faso la bàyyi ko am vingt sept ans mm. ñu ñàkk si noonu seen bakken ak ay yeneen blessures yu grave yoo xamante ne mënoon naa ñàkk je pense que tamit lii dafa war a tax ñu xam ne ñiy maintenir l'ordre ci boor yooyu nga xamante ne ñoo nekk ci exploitation yi noonu ñu ñu ñu rappeler leen bu baax a baax à la retenue c'est mm. très important maintien de l'ordre ne ngay rey on n'est pas obligé saa boo defee maintien de l'ordre nga rey ba bakken daanu na mhm. yooyu c'est très regrettable mais tamit mu invité leen ñu bàyyi xel ña fa nekk yooyu ñooñu ñi nekk ci exploitation yi rien que image yi ngay gisee dafa lay war ne ñi beneen Sénégal la ñu nekk xonqaay ga mu xonq nañuy def pour am xaalis bi non seulement seen santé mhm. mais nit ñoo xamante ne tey jii c'est-à-dire coupé totalement ci ci ci ci réew mi mhm. lu tax état wu Sénégal munu xalaat naka lay def ba jël fii ay ay nit wala spécial ñu dem xool doomi réew ma fa nekk noonu ñu taxaw leen ndax contrat yi ma ngay jaar yoon ci ban anam la ñuy liggéeyee ndax lii warloon na ndax lii seen santé prévention bi euh, si lan lan lan cest à leen ba ñu sentir seen bopp ci réew mi mais au delà de li nga xamante ne mooy exploitation minière kese lan lañ mën a ma def ci entreprise boobu dina dundale waa Kédougou mhm. mais ñooñu bu fekkonte ne du ñooñu wala yenn ONG yi bu fa xalaatul am liggéey feneen man am na ci koo xamante ne ñoo jàngandoo ñoo defandoo société bu dul bu dul woon yenn ONG yi fa nekk ni mu nekk di kalang amul leen lu mu fa mën a liggéey parce entreprise amu fa amul leneen lu fa mën a am donc pour man yoon na tey ji jamono la euh, nekk na nu ma ko mën a waxee sax dafay yoon ñu xool naka la ñuy taxawaatee ñooñu. parce que ci mhm. Sénégal la ñu bokk. ay sénégalais lañu am kayitu Sénégal nañ leen taxaw ñu am euh, privilège yi nga xamante ne Dakar waaye ak yeneen région am nañ ko. war nañ ko war nañ ko mën a am sax ci euh, loo xam ne si nii wala diwaan boo xam ne si nii daanaka. Eh, bokk na ci bu ñu waxee ne Sénégal moo ci gën a euh, riche euh, ci li nga xamante ni mm-hmm. euh, moom ci am na ko ci suufam muy or boo xam ne si ni daanaka na ngay def ba jot ci doo sonn ndax gis nañu yenn réew yoo xam si ni pour ñu am or am nañu or mais pour ñu jot ci danañu gas a gas a gas a gas a gas ba sonn ñun nag ñëw yàlla defal ñu ko nga xam ne si ni daanaka da ñëw ci ndox mi yor sa benn kii rek di am si am mm-hmm. jël fi sa or je pense que diwaan boobu di diwaanu Kédougou tey war woon a bokk ci région yi gën a ci ci ci ci Sénégal ci régions yi gën a riche ña aussi bokk ci eh, eh, maanaam population yi nga xam ne si ni tey ñoom ñooy gën a gis seen bopp ci Sénégal parce que tamit dañu am richesse boo xam ne si ni tey war nañ ci mën a eh, profité mais lu ñu fa gis mooy que ni ña fa ñoo gën a sonn ci ñoo gën a sonn ci Sénégal donc loolu tamit ah oui c'est un c'est un problème kenn xam nga xam nga luy waral wow na kong mu amul dara xam nga lu waral pauvreté boobu wañ sa mm. mooy loolu wañ sa ci ci wolof maanaam suñ leen suñu xawoon a leqaliku tuuti dañuy xalaat suñu xalaatee danañ xam na lañ war a jëriñoo seen àll léegi nag loolu la ñuy bañ moo tax dañ leen gën a maintenir ci dund nga xam ne instinct maam ci survivre la ñuy nekk mhm. du ñu nekk comme xalaata wàllu développé wala seen doom war a gën a mën a jàng wala ñu xool contrat yeeg yooyu yow boo fa yeggoon yow beneen mentalité ngay yor mhm. léegi nag loolu sénégalais yi ñoo war a mottulante yow yaa ngi wax loolu leen dal noonu moo daal Sénégal suñu ay tëgg oru Sénégal duñ ko laal fii da ngay xool jongama ji la romb damay jël exemple Ngoy Fall mi ñuy wax ak ñeneen ak ñeneen. Mm. loolu ci seen baat bañ koy ndamoo ak euh, wax nangam ak nangam boo leen doon xool amul lenn lu ci jóge Sénégal ñun bu ñuy jël oru. Dubaay la ñuy dem jëndi wala yu demee noonu. Mm. te pourtant ñun amoon nañu. 10 pour cent actifs supplémentaires yoo xam ne Sénégal moo ko moom. waroon na ko mën a sax sédd suñ tëgg yi maanaam lim ci moom noonu mu koy jël comme wurus donte loolu lu la. mooy dix pour cent actifs supplémentaires yooyu fi ne nii eh, dañ koo wanteer mhm. dix millions de dollars mu nekk cinq milliards ñu jëloon ko injecté ko ci Prodac te gis nga Prodac ci Kédougou dañ leen laajoon ci ay dak waa ji ñu waaj ba koy mottali maanaam ku mel noonu nga xam ne moom la ñu waroon teg sur le de d'accusés yow yaay piloté affaire bi yow yaa mujj yow di yóbbuwaate ci yoon maanaam comment Sénégal bi ñu nekk Sénégal bii la ñu nekk. parce que hmm. Sénégal boobu bu fekkoon ne tey si même bu dul la c'est minime 10 pour cent d'actifs supplémentaires yooyu ci oor c'est minime mais bu ñu ko jëloon tey bañ ko monnayer jël ko muy loo xam ne wurus lay doon ñu koy teq di ko jaay mu am lu mel ni comptoir wala fenn fu muy dem tëggu Sénégal bi mën a yegg foofu di ko jënd di ko defaraat di ko taaral. Hmm. xam nga Sénégal dafa am métier yoo xam ne benn rek moo ci rëcc ñuy wax yàlla nañu gën a rëcc te fi ñu toll sax ñu ngi leen di menacé muy tailleur métier yi ci des yëpp nga xam ne yow moom mooy industrie bu ñuy wax industrie point yi mënoo ko wax te waxoo acier maanaam fer te ñun dañu yàgg ak tëgg daan ci def lu ne yàgg ak moom tey jii da nga déggati ki fi njëkk a defar fetal ci jurbel gi daanaka ci jamono yi fetal gu sophistiqué dañ ko jàpp maam loolu mooy bul xalaat mm-hmm. jël affaire boobu xeet ñi nga xam ne ñu ngi def mujj ko def kast maanaam man damaa jàpp ne sax man maa leen gën waruma sax takkanteeg ñoom jabar am na ñoo xam ne sax dañ naan boo takkanteeg ñoom dañ lay um loolu mooy réalité yi nga xam ne ñoo fi nekk pourtant boo demee ci tëggu tubaab bi <laughs> mais noobul nga fay fekk. Hmm. noonu nga mën a waxee ci lawbe bi ak ni muy yette maanaam ñooñu moom la wolof daan wax ñeeñalkat baatu ñeeñalkat mooy artiste. wala ñeeño jógee ah? voilà ñu ñaan leen ñeeño yi. nga xam ne xarala gi ñoom sax booy xool Euh, ci tëju seen biir bañoon a jëlante ci ñoom ñoo ko defoon pour bañoon xarala gi génn ci seen diggante te daawuñ ñaan fii kenn rek moo fi daan ñaan te nit ñi jàpp ne dañ ko war mu ngi mel ni comme yenn journaliste yi lu tax ñu leen jox aide à la presse te joxuñ ko ñeneen ñi yeneen métier yi joxuñ leen aide à la nangam aide à la presse parce que dañoo ne yéen ay géwal ngeen non si non loolu moo ñëwaat moo démb même maam noonu la xoolee. géwal bi service public la ñuy def. waaw géwal bi ta waaw géwal bi waaw non moom la. xam nga ñun bokkuñu commerçant day jaay am bénéfice. am bénéfice ñun mën nañ am dara xëy di wax suba ba ngoon du am moom laa lay wax. géwal bi tamit da doon xëy suba ba ngoon du am dara. léegi ñoom ñu xool ne kii même bu ñuy xare bu ñu ko rey. ndax moom moo fi nekkal. mboor mi moo fi nekkal mbatit mi moo fi nekk tey moo mën a kañ équipe nationale reporter sportif Ablaye Diaw wala nangam wala keneen ki ngay gis ni muy def Lions yi di